asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu comme niñ ko baaxoo defee seen beneen numéro ñëw nañ fii nga xam ne seet si tey mooy Serigne Cheikhouna Kane di sët ki nga xam moo di Serigne Modou Kane ak Cheikh Massamba Mbacké mi nga xamante ni moom mooy ma Massamba borom xasida yi ndax lu ko tedd ki Serigne Touba Cheikh du Bamba bind ci xasida yi lu ci ëpp seex ma Massamba moo ko maas tey nag kenn ci waa kër gi di ñaar di di ñaar niñ koy waxee di benn xeer boo xam ne boo ko boo ko sànnee mu daj ñaar. ndax boo ngeen déggee loolu mooy sëriñ Modou kan rek dafa doyoon sëriñ ma Massamba rek dafa doy waaye nag tey nañu seet si sëtam boobu fa séenee seq ak mu waxtaan nag muy koo xam nag dëkk ci dëkk bi nag li gars yi dëkk dëkk bi defar dëkk bi tey nag kooku la ñëw sëriñ bi ginnaaw bu ñu doon ñu ngi lay jaar baax tey ñu fekk si la ngir fas yéenee yëkkati ay kàddu seq ak yow waxtaan boo xam ne nii lu soxal li nga xam ne ni mbirum réew mi la mën naa ne partout dans le monde sëriñ bi ginnaaw bi la nuyoo. Euh, aouzu billahi min asheytaan rajim wa inni auduha bika wa duriyataha min asheytaan rajim rabbi audu bika min hamidati shayatin wa audu bika rabbi an yahdurun xasbuna allahu wa nicma alwakiil wa nicma mawla wa nicma nasir laa xawla wala quwata illa billahi ali azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhaana zi mulki wa malakuti subhaana zi izzati wa jabaruti subhaana xayu lati laa yamutu subhun qudusun abu malaaykati wa ruux ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu laa ilaaha illallaah sayyidina muhammadan rasulullaahi sallallaahu taala alayhi wa sallam allaahu akbar allaahu di fay bi ci nuyoo bi ci ñaan yu am solo yi ndax lii euh, nañ xam naa dañu daal di dugg nag présent euh, ci li nga xam moom di waxtaan bi ci dëkk bi nga xam ne fi lañ nekk di Touba. ku ne xam na jamono ji ñu ngi fi jamonoy nawet ndax mooy waajtaayu màggal Tuubaa sëñ bi màggal gi nii di ñëw ak nawet ak dëkk bi li nga xam ne ci tolluwaay mu toll ci waaw sëñ bi ñi ngeen di fay ab nuyoo di ngeen ziare di rafetlu lool laaj boobu nga xam ne laaj nga ko maanaam u uh, jëm ci dëkk bi waa dëkk bi day dëkku Sëñ Tuubaa ci bu wér dëkk boo xam ne temps yi suñ tubaa jékkul jékku rek sañ ko ci coobaram da koo da koo jënd ci boromam am ngum jaayante woon ak boromam nekk ca nekk ca ba li ko boromam faye dëkk bi bokk ci mag wax nañ ca ci xissa yi gaa yi di teg sëñ bi bi muy jógee ceen joof di dem gànnaaw ci gaa wax romb na Tuubaa bu ko geesu suñ wax irham ñëw na ko boo geesu dëkk bi ndax njëg gi matagut ba mu demee ba jëggi mat gi mat jot na ca kon tey Touba gii euh, war naa meeg na Madina gee wala bu ko miirut sax mu jege ko ndax boo xoolee Touba liñ fi def ci ay milliards bëri na ko liñ fi def ci ay milliards état def ko fi ak ci xaalis suñ Touba bëri na ko te ba tey nag amul gudd benn résultat benn résultat nag amu ko kon xaalis bi dugg xaalis si dugg nañ ñi jiite yëf yi nañ wax xaalis bi dugg. ñu jiite yëf yi bu ñu ko waxee mooy ñi nga xamante ne si nekk nañ ci kappaag suñ tubaa gi di liggéey suñ muntaxaa mi fi nekk ak suñ tubaa yàlla na fi yàgg tëwéer ba naag yim naag yëpp ngéegéeg maam suñ tubaa mat ñi nga xamante ne ñoo ko jàpp ci liggéey bii état di gën jox xaalis pour ñu liggéey ak euh, maanaaka ñu ak ñuy jooy ci xaalis suñ tubaa bi xaalis boobu fu ñu dugg mënuñoo dut baam ci lii nag yii ci lañ ko def ci gu wér ci gu jëm ci wàllu ngi ma wàcc mu assainissement déedéet taxawal rek sëñ bi assainissement assainissement bu fekkoon xaalis bi mi ngi dem am na ay sànc xam nga sànc baax na waaye sànc day am fi day am finition nga am sànc defoo ko mu am finition bu baax ñoo xam ne lii baax na boo nee di ñëwaatee mu taw bu tawut wala mu mu xaw a jag ñun alhamdulilah waaye depuis Touba ba tu nekkee tubaab ba léegi ñu ngi def te gisaguñ benn résultat aucun résultat amut boo xoolee diggante kër suñu abgaat gii kër suñu abgaat gii ak jumaa ji même pas 200 mètres ba ki taw nu mel. Touba gépp ginn di di wax anam yaa ngeen def fu dugg fen nañu wax fa xaalis bi dugg yi man suñu Cheikh naa maa ko wax laa wax fa xaalis bi dugg kaa ngay dëkk bi suñu a ko yow boppam muy wér xasida gan ci la sëñ bi bind madda bu fasey ni ba mu koy bind daa toog ca xay ga di ko bind fii ci kër suñu Cheikh ba mu koy bind ba ak ca bëy ba mu ñaan a kaaraange mm-hmm. aw gaynde di daq am njaa am mbaam mbam mi bi mu dawee agsi ci sëñ bi jël ñaari tànk yi gaaru ko ci mbaggum sëñ bi njaay ak gaynde ki agsi di xool mbam ba caag mu wàññeeku suñ boobu xamoon ko kaar nga nangu na kon waru moom waru yàgg nangu suñu tubaab ba mu bañ ko doon ko ko denc. amaana Baay Faal yi ñu jox dëkk bi duma ma def di ko rafetlu ndax suñ Muntaxaa moom lépp gu mu wax rek waa gu mu nang duñ def gu ci ànd. te ba Ibra Baabu Muriidiin mu am mu génn suñ tubaa suñ tubaa fay ko comme ni suñ tubaa fay magi suñ tubaa yëpp ni suñ tubaa yi ni si suñ tubaa suñ dangam suñ mu nekk noonu nga suñ noonu nga seexi ba dëgg nag damay faa di wax ne seexi ba liggéey na suñ tubaa maanaa wu ko kenn defal suñ tubaa fay ko bu mu faywut kenn mooy gii coow rek girime nii nangam toog waaw mooy zahir si rek la ñuy gis nii zahir rek waaye baatin ba dëgg sax du feeñ kon suñu mun taxaa jox gii mu jox Baay Faal dëkk bi duñ def ko di ko rafetlu boo ko defee nag ño ñoom nit gi ñeen ñaan liggéey bi na rafet rek liggéey bu na rafet mooy eh, ab liggéey da nga koy def ci kàddu gu dal ak dal kuñ taseel nga takku kenn baa nga watu dégradé ñu ne laa ah, lii kat sëñ bi première fois avertissement day am yàgga sax boo defee dara day jox avertissement waaye doo def daa mun a tëg dal ci ko lii kat bu mu demee nii nangam nangam nga may ndigal gi première fois muy avertissement benn yoon nag bu ñu jugaatee fañ jaaroon ñu jaraat fa gis fa ga ga sëñ bi ay bu baax ñu jëf dégg nga est-ce ngi dégg fi may waxe bu ko defee bu baax nag ñu doo ñu doog jëf waaye comme nag waaye waaye nag jox géen sëñ bi jox dëkk bi moom rafetu dong ngañ koy def ndax Cheikh Rafaal moom léppam daa rafet Cheikh ba léppam dafa rafet ci ko sëñ Tuubaa kon doo duñ def wut di ko di ko rafetlu di ñaan ndigal gi yàlla nañ ci am ndam ñoom mu

dama yëg ëgg ri ri xaw a ñaga jax jaxam ak ñag bi xaw ko ñagam ak di juddoo ci biir nag bi kër suñ tubaa gi am na ay sëtu suñu tubaa yu fa nekkoon ne póoti dëgg war dëgg baka suñ muntaxaa yëgee da cee tànk jër ñu dem ci suñ muntaxaa di jooy ak def yëf ñoom ña ko defoon waaw ah. du yoon ak ku maano ak ku mën a jur du dëgg du yoon waaw ñëpp ko xam kon woogu sax defe naa ne woogu sax mooy su cosaan li tax suñ muntaxaa ne dëkk bu fi kenn dafa ti ndax kër suñ tubaa bu ñu koy def póoti taxut duñ ko defal ngi di fa dara ay gan suñ tubaa di fa jàng ak i xasida bu màggu tubaa ñëwee gan suñ tubaa yii ñu mën leen faa dara am déet dëgg war dëgg dégg naa defar nañ ci def nañ fa ab saar boo xam ne ay sëti suñ tubaa ñenn ci ay sëti suñ tubaa ñoo fa nekkoon ne politique wow nekkuñ ci dëgg nekkuñ ci yow ndax suñ tubaa politique santaanul kenn mu politique dëgg war dëgg waaw ci politique xam moo ñu bëree bëri xëccu ba ci am na ci ñenn ñoo xam gis nañ leen tam doon liggéey ci ay télé léegi nee nañ ay député lañ ñooñu ñëpp tolluwaayu réew mi li fi jaar ci ay coow lu ne am na fi yow loolu ban yëg gis-gis nga ci am. du ñoo yeb Sénégal yi rek. politiciens yi ku leen gën a réew yàgg sax yeb Sénégal yi dong lañ def sëñ bi maanaam Sénégal dix-huit presque seize millions nangam habitants ñu matu cinquante mille ci biir seize millions yooyu bëgg a nit ñi di leen fontoo di wax nangam. réew dong nga def kaa wax yàpp Sénégal yi dong nga def li xam nga wax amul solo li am solo mooy jëf ñii nekk ci naa bi nga njëkk nañ jëf te liggéey ñeen ñi ci des ku ku ci bëgg a jot Sénégal nga liggéey te te wàññi wax ji ndax wax surtout da am déet ba àdduna soso ba rek dangaa gis loo xam ne nañ wax ko sotte dëgg dëgg wax daa sotti daal ñii fii coow ñëpp kenn ci nekk président bàkk suñu tubaab Idrissa Seck doon président Sénégal Idrissa Seck yàgg bind ci jéem moo nekk président Sénégal benn Khalifa Sall doon président. sëñ bi man dégg bu baax yow li wax nii. gis nga li may wax nii. lu li may wax nii. Ah. damaa suñ boobu moo ne wa taxu gaaxa. wa yàgg mu ko mu gaa wa gaax bi ko seen naag ko waa nga yàgg nga xam ay mbiram nga koy wax muy am man ba ma day wax ba tey gu ma wax Sénégal gi ci bët maa ngi sant yàgg bu baax. wa may taxi gaax yi jaxu maxaja waaye suqu min xeesu kaay tas bu ko yàgg wax. Hmm? li ma mën a xam a daal mooy li may wax daal virgule du dañ te ko ko wedd mu rëq sa ndigg ak koo maa doon. ak koo doon mu rëq sa ndigg. mais ñi doon président yàgg bindu ci jëm moo war doon président Sénégal. Ah, bàkk Cheikh Ahmadou Bamba du ko doon jàggal. Euh, bu ko weesoo Ousmane Sonko mii ah. fan yee maa fi génn gu ma wax maa ne Ousmane Sonko fii ak 5 ans jàpp 7 ans ma fu mu nekk président Sénégal mën na koo doon nag. waaye nag du du ci at yi yëpp du léegi bàkkeb Cheikh Ahmadou Bamba du nekk président Sénégal ci juróomi at yi wala juróom benn jàpp juróom ñaar yoon loolu man maa ko wax boo ngeen neex ngeen enregistré ko ci internet bi ngeen denc ko maa ko maa waxoon maa ko waxoon fan yii ci ginnaaw ba def naa fi ma ko waxee ak fi fi ñu ko jàppee xew-xew yi def naa ci ñaar fukki fan ca ko toog Mimi Touré du doon président moom base po moom base politique sax amu li may wax nii nag da nga jàpp ne waaw li may wax wax nii nag boo boo toogee ñuy waxtaan da nga jàpp damay xalaat di ko wax sama course gii ngaa téye di sikkar basaa boobu xam-xam bu wér ci ci réew mi moo koy wax te naa ku ko wedd virgule du ci dañ te ku ko wedd ma rëq sa ndigg kay waaw ma ku ko wedd foo nekk sama course gi fekk nga ak koo <laughs> a man moom nga may wax moom ci man donc sëriñ si ci Sénégal gi may wax ci man donc nga koy dégg te nga may wax nag moom kenn du ko dind nag te ñi ma xam dëgg bu ma ngeen waxoon jégg seen bopp ngeen fett seen bopp duñ koy def kooku yàgg may na ma ko man suñu Cheikh Makan nii Mimi Touré moom passe passe politique sax amu ko moom day sonal boppam Mimi ni mu war a def mooy dem dem ci nit yàgg mu ñaanoo ko waxuma ko sam bi jënnaam koo xam ne da yéegee tur yàgg wér mu ko bu ko defut ci kanam dana am gaawankoor dana am ñaari gaawankoor benn bi ci wér-dugg yaram ku nekk ci moom ngay doon ñaara bi dana am gaawu ngoog ci wàllum jafe-jafe àdduna woo ko bàkki suñ bàkki suñ tubaab jàggal keneen ki kan la hmm? kan ak kan nga fi tudd Idrissa Seck du doon président ci Sénégal yàgg bind ko ci jëwam Ousmane Sonko fii ak juróom-ñaari at yii gisuma fa mu nekk président Mimi Touré doon président Khalifa Sall doon président président Sénégal dana am ko koy doon di nga dama nga yoxu rëy te nga may wax dégg ko dégg ko attentivement écoutez-moi bi écoutez-moi attentivement attentivement laa ko wax gis nga ku gaaw laa gi boo nee ma ci mer waaye man faagu ma ko wax gis nga Macky Sall mii bàyyiwoo ñu jox ko réew mi fii ak juróomi at da ngeen xamul ma gis rek nga xaw ma laa koy wax koo xamante ne si koo ko dégg da nga sëñ bi xanaa day géntoo ne ko xam nga ko tax Macky génn na def déclaration na na mandaam jeex na fexe na ci réew élection mën naa am Macky Sall caa bokk kay nekk président mën naa nekk président waaye bu ko nekkee du àggale mandat waxoon naa ko fa ne ci ginnaaw mu génn rek bu doxalee deux ans wala trois ans coow gu rëy dina am ci réew mi militaires yi danañ jël danañ jël gouvernement bi gu garaawaay te militaires yi mu jëlee gouvernement jafe-jafe dong la ñu indi te boobaa Sénégal dana nekk ci guuta goo xamante ne si ba nga caa génn nit ñi daañu sonn ko. kon balaa caag nañ bàyyi Macky Sall bi mayaat ko yenn cinq ans mu doxal réew mi dana neex Sénégal ngay yàkkamti. waa moom dama ne. xam nga loolu moo ko wax. man li nga wax engagé wu ma man li ma yàgg a wax ma koy wax moom engagé. waaye dama ne. Macky Sall li mu du bokk engagé wu ma lijjanti wu Macky Sall faale wu ko soxaale ko dara li ma saamam suñu toit dafa doy nu ma sëkk Macky Sall li mu wax engagé wu ma xam nga ce qui m'intéresse mhm. man li ma gis moom intéressé ma koy wax te biir gi du ci dañ Macky Sall ci boppam nag li mu wax moom nga engagé kenn ku nekk engagé Macky Sall moom laa ne li ma yàgg woon ma koy ma koy wax laa ne nañ ko mayaat cinq ans Sénégal yi dañoo yàkkamti waaye réew mii danaa neex gis naa fi ay xéwal yu bëri yu bëri génn Touba gii sax am na pétrole am gaz Touba gii te pétrole bi ak fi mu nekk ak fi jumaa ji nekk soriwul bàkk suñ Touba gaz bi fi mu nekk ak fi armée ngi nekk soo wér wér gaa wax Diourbel gii am na or am am phosphate mais mais candidat yu bëri man ne Macky Sall Gane dëgg bu baax li ma wax Sénégal yi nañ ko mayaat yéen juumee at. mais sëñ bi gars <laughs> kenn du ma te li may wax ne moom nga yàgg a signé. Ah? ci laxu Mahfouz moom nga moom nga fa yàgg signé. <laughs> kon nag gars yi boobu gis nga li may wax nii moom nga yàgg bind ci àll àll àll woowu laxu xam nga lu fa yàgg bind. waaw yàgg nga fa bind laa koy wax yàgg nee na. waaw Macky moo wax ne du dem troisième mandat mm-hmm. Macky Sall mën naa ba ñaan nekkaat président waaye ka fi nekk président bu fi nekk président mandaa bu du ko àggale bu ñu demee bu doxalee deux ans trois ans coow wu rëy dañ am ci réew mi révolution dëgg mën na faa juddoo militaire yi dañ jëw euh, euh, arme bi maa ngi ñëw yàgg googu bind ci gaaxu moppos woo tax may ñaan ci may ñaan ci Sénégal yi ñooy ñoom nañ may nañ may Macky Sall cinq ans bu ñu mayee Macky cinq ans mu doxal réew mi mën naa neex bu ñu waaye buñ bu bu bu bu buñ mayoon Macky Sall cinq ans ka fay nekk président tamit coow dong ak jafe-jafe ak xat-xat la indi ci réew mi yi maa ko wax te virgule du ci dañ nag bakk suñu tubaab. kon xam naa sëñ bi li nga wax man dama xaw a jaaxal tuuti. kooku dégg kenn dana nga jaaxal. vraiment mais. waaye kooku yaa ngi bind ci waxuma fos de. ñeneen ñi di réew mi ku ne gis na ne ñëpp ne nañ ay candidats. Hmm. ay Pape Djibril Fall peut-être. Pape Djibril Fall daa jaaga. mais li ma mën a waatal de bàkkib si Ahmad Bamba li may wax moo raw téléphone moo leen raw yéen journaliste si ah. xam nga wax yu amatul wax yu mu amatul ndax yoon yonent amatul waaye ilham mi nga am ñu ci bëri fenn dong la ñu def kaa wax benn baatu dëgg duñ ko wax fukk yu ñu wax benn ci dëgg waaye dama ne nañu wax dëgg xam nga ñun duñ ay sëriñu tayax ñun ay sët suñ Tuubaa ñu ay doomi kilif ñaan gii su su yaakaaruñ ci duñoo tedd yàgg may ñu am course tey jii boo nit yëkkat bu nit yëkkati woon un million ma ko am naa sama tubaab gi mën yëkkat ay million jox ma ko addi suñ Tuubaa dëgg war dëgg kon noo faa ñaan ak yi ci ñun ndax sama maam si mu ko xam xam ko ci ñaan am déet kon tey fi doon ñaan dara de ci bu ñun tëdd fii dina sax suñu biir suñ Tuubaa ñu ko defal kenn mënu ci am jafe ndogoo suñu boobu ma ginnaaw bu ndogoo suñu boobu jagee ndogoo goo gis dana am sabab sabab ga. sabab ga ay nit génnuñu ci. maa ko wax. te am na yenn accident yi am. am na ta ah, danañ am taw yu métti yoo xamante ne dana am Sénégal bu fa amee inondation métti dana am maa ko wax bind bind nañ ko denc. Eh, taw yu métti dana am ci Sénégal fii inondation yu mag dana fi am dana am yenn accident yu métti yu fi am xam nga fa fan yi gënoon naa wax am na accident yu dafay am motu une semaine 23 26 moo am fenn am fa. Louga yenn accident danañ fi am boo ngeen neexee sax moo wax rim bi ciy fàpp. xoola xoola diggante Dakar jàpp Tambacounda dana am accident bu fa am bu fa amee 46 morts dana ci am ñeent fukki nit ak juróom benn. maa ko wax te bu neexee bind denc 46 morts dana ci am Sénégal tamit dana am ay taw yu metti yu fi am bu fa amee inondation yu mag dana fi am dana am ñaari kilifa yoo xamante ne si kenn ki ci nituk état ngay doon kenn ki ci kilifa diina ngay doon daañu faatu ba nga yàgg bind ngeen denc. jàngal boo amee ngeen doon raaj nga raaj. li may samay wax nag yi ma xaj ci bopp bëriwut ku sa bopp noo yi doo waaw. Sénégal yi man am na ñu ma xa xa la wax xam ma duma ma gan ci yëf yi xam nga man du ma gan ci yëf uh-huh. ñi nga xamante nee naa la sànq ñi ma xam uh-huh. bu ma leen waxoon dégg ngeen bàggu fetal téye seen bopp duñ koy def duñ ko waaj xamul nag ku ma xamul. man moom wax yàlla moom waxoon nañ la ne ah, xam nga wax nañ la ko. waxuma daa sax am na wu ma denc koo xam bu ma ko waxoon fii nga yuux waaye du ma du ma ko wax dama bëgg bàyyi ba yi xew ba noppi nga ñëw ma woo nga ñëw ma waxaat daa yeewuwut nga may wax nii moom du baatin waaye sama xel rek bu ma analyse gaa yi waxe Ousmane Sonko daa yeewuwut gis nga bu yeewu woon nit da ngay yeewu wala boog amul entourage bu ko wër bu baax dialogue bi da ca waru dem sama gis-gis bu demoon ca dialogue ba ndaxanteeg Macky Sall ba mu bàyyi ko bu toogee gu mu bëgg a def def ko waaye daa yëwut adduna da ngay naxante naxante ca gañ mën a amee lépp du dëgg waaye naan nit fee gañ jëm buñ àggee fee danaa yow mi ma waxoon nañ jëm fee buñ àggee fee danaa rendi baa ngaa àgg bo boo bëggee boo mënee ren danga may rendi ah kon Ousmane Sonko daa yëwut bu yeewu woon da nga doxee neen nuwut nii wasalaam kaso bee nag du fa gaaw a génn bu soobee yàlla bu ma sañoon suba suba mu génn waaye du fa gaaw génn mais ñi <laughs> ma la moo tax seen mbokku sëriñ si ñu déet ñan man da nga maa mos mu wax ko. ci gaa yi ci gaa yi moo tax ma di dañuy fen rek benn ba dëgg gone sëriñ si duñ ko wax fen rek ñoom xam nañ ma am na gone yoo xamante ne sii sama mbedd mi duñ fi jaax jàggal. waaye bu mu ñooñu waaye ah jàggal. xoola. mboo waxee Cheikh Bara sax ma xaw a tane ndax Cheikh Bara doomi doomi nit ki am fu mu bokk ñu xam ko waaye gone yi nga xamante ne man xaw ma fu ñu bokk man waxuma waxuma ñoom jàgg seet sëñ bi gone yooyu daal sëñ man du ma wax gone man kii fa na man ngay wax waxum ay gone li ñu wax rek waaw xam nga rab ak jinne ñu bëri dañ koy wax te xamuñu ko maanaam na gone sëriñ si fenn rek la ñu def wax dëgg dafa baax man booy boo gisee ne may waxe nii ñu naan suñu sama nangam man damaa dëgg toog suñ tubaab moo ne ak xàqu saabit wa am ak baati wa inna ala fadahiqun wa saafi dëgg mooy sax waaye étape wekk neen bu mu ko wekkee ci suuf nga jëm waxi suñ tubaab moo ko wax ci nax ñu ko dëgg war dëgg waaw bu ko weesoo rab ak jinne bu koy misaal mi ngi mel ne nit ak noppi si jaboot rab nekk nopp si jaboot jinn nekk nit euh, rab nag yàgg da koo bind muy xarin booyoo ko ak doomu aadama kenn mënu ngeen tàqale da ngay fexe bu jubóog moom jubóog moom mooy gan mooy xam sab saax te ko def waaw waaw ah, ah, ah, waaw ñun woo ko ñu doon xam sab di ko def nit ki boo xamee ab saaxam di ko def xanaa xamoo jootu muy dem ci sëñ naan ko ñaan ak ma waaye gi jafe nag mooy fexe ba ñu seet ak seet gu wér na lii mooy sab saax ko def bisu altine wala bisu alxames man seetuma seet yëfi gone la gone yi xamul dara ñooy seet man damay gis yàgg damay wan may gis xam naa ca woo xam bu moo ko waxoon réegi nga di jug daw bàkk Cheikh xam naa ci yow woo xam xanaa xamoo képp koo xam ne jug nga di ñëw sama bunt kër bi boo fa tegee sa tànk képp ku nekk ci suñu boom xamoon moom bàkk suñu tubaab bay dégg nga mii sax rab da laa rab sab saax soow ga boo woon saaxee soow ak juróom ñaari doomi góor yu xonq ak yu weex bisu altine bisu alxames rek may ko jàmm moo saxam jàgg ak juróom ñaari doomi waaw gars yi noonu moom moom buñ kiwee ñu seetal ne waaye yow mii da xam naa ne sab saax moom soow ga juróom ñaari doomi góor yu xonq ak yu weex ak soow witawub soow boo ko saax saaxee di ko saaxee rek mu baax di seet nii waa xam nga gis moo moo raw seet waaw boobu saa boobu may nañu ko. a dégg. ah ba tax mu nag man li may wax man dong koy wax. sëñ bi may wax. Ah, li ma mën a xamal ah, li ma mën a xamal daal mooy. naa naa laay biir ndax li may wax moom bu ma ko wax xam naa sa bopp ngeen exposé. maanaam li ma mën a doog daal mooy. nañ am na ñaan yoo xam mi ngi fi muy waagum rab ku rab sonal boo dikkee ñu dimbale ci ak jigéen ñu taxaw bëgg am doom mu toog ko ak ak góor ñu néew kattan Sénégal bu fekkee 100 pour cent 95 pour cent yëpp jigéen yow naa ji garab bi kattan yu baax yoo xam ne ku ko naan ku ko naan jël traitement bi màgg danga mën a xéwgu bu baax ci soxna yi fanweeri minute jàpp 40 minutes ko mën a xéwgu. Ah. bàkk suñu tubaab laa coor. ah déedéet da ngay faj boo jegee traitement bi mu jeex boo neexee teg 20 ans ba nga 30 ans xam garabu kattan moom dootoo ko naanati boobu ngi ak ñun. wér waaw góor ñu mëntuñ daa góor dëgg moom yomutu ci réew mi moom bu googu weesoo maanaam nomba kasu gaa ngi fi nomba goo xam ku takk doo dugg kasu <laughs> moom mi ngi fi waaw eh, daañu di def tamit maanaam fay wax moom wax moom du may faral ak coow fu mu àgg yow naa ji koo xam ne bu mu ko bindee bu noppi ci tuq nga koy def sangoo ko waaw gën fu wax wax ji moom fa nga yem ci saa si moom am na koo xamante si nag moom bu fekkee dañoo bëgg samp doomu aadama comme nit ñoo xam dañu da bëgg a samp nit ki bu ma xamee sa tur ak sa turum day xam sa poids bi ngay peese ak dëkk bu nga juddoo moom am naa gu may ji def mën naa kaa tàgg ba ñëpp di ko dégg ci kattan suñ boobu. kooku suñ boobu may nañu ko li ñu war a mën a waxtaanee bëri na woo sëñ waaw waaye nag daanaka comme tey moom tey comme tey moom damay tënk waaw li ma mën a wax daal mooy at mii daal atum nàkk la ceeb bii ku ko man na nga jënd ci rëbb ceeb def ko ñàkk nakk ceeb def ko ñeent fukki dank ak benn quarante quarante quarante et ñaa ngi dégg saraxu ay tuut tànk mooy saraxum àdduna ku ko def suñu boobu mën naa ay bisi xëy mën na ngaa musal mooy saraxum àdduna woowu ko man nga jàpp bis bu altine waaw bis bu alxames nga def ko woo daal ñëpp di sant di ñaan di ñaan di ñaan tamit maanaak euh, yaa nga fi yàgg téwér ba naag yim naag yëpp nga yëg maam suñu tubaa yëpp mat loolu moom ñu ngi koy ñaan te day am waaw waaw màgg waaw màgg ni ñëpp màggas ñëpp ku bëgg nañoo dagal moom ñu màgg màgg gu neex feet rek màgg gi du gën a wut feet ngërëm nga euh, boo boo boo màgg gi daa dem euh, ab ab ab combat bu mu demoon ba am ca ndam ñëw di feet rek feet rek nga si Moussa Sarr di rek màgg gi feet rek feet nag wóotul rek ak naan noos waxtaani suñ tubaab mu jeex xaw na ni ñëpp màgg si ja jàmm ñëw ci jàmm deewaat ci jàmm màgg gi neex ñu feetee yëpp jeex taakal waaw mu gën di gën sax nag di leen gërëm waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa